doo tàggoo te xam naa ni tamit eh, am nga ay collaborateurs yoo xam ne ñenn ñi gëj naa toog ak ñoom ku mu du Mamadou Awa Ba Ndiaye mais ñu xarañ te def seen liggéey ni mu waree di leen gërëm di leen sant ci li ngeen nekk ndax eh, dafa am lu ñu moom nag ñoo xam ne ñun ñëpp a ko bokk muy RTS def naa ni <laughs> maa ngi fa géej ëpp na juróom-ñetti at. ah bon ah oui donc eh, bu ñu nee fii suñu kër li waroon nekk suñu kër ñu bokk ko ñun ñëpp. di fay di ci fay suñu impôt yooyu daanaka bokkutuñ fa euh, je rappelle que ba ma fay gëj ci août 2016 la août 2016. nga fa gëj laa fa gëj. boobu yaa ngi nekkoon ministre de l' ñuy wax ci affaire contrat yi di waaj a waaj dem waaye ñëw ma nag pour euh, <laughs> changer kanam wala kii déet dama relax effectivement waxtaan ak sénégalais yi bien que situation bi xaw na. doy xaw na xaw xaw na doy waar mais mais mais xam nga xam nga la leçon qu'on tire de tout ça euh, mooy ne boo nekkee ci nguur del jiw loo xam ne ëllëg boo fa nekkatul euh, di nga éviter lépp luy injustice euh, ba ngeen ba ngeen ñëwee noon ngeen changer la donne à la RTS parce que donne bi sax changé woon na su leer Babacar Diagne Babacar Diagne ba mu nekkee RTS son deuxième retour Babacar Diagne avait ouvert il avait fait beaucoup de recrutement Racine a fait la même chose hein mais Babacar Diagne indiwaat les les tribunes politiques l'opposition et c'était des débats vraiment euh, succulents de, de des débats de haut niveau mais yéen da ngeen ñëw ngeen toog xam naa nguur bi commencé leen dugg ngeen tëjal l'opposition la société civile les contestataires les activistes euh, buntu RTS bi nga xam ne c'est un bien public c'est notre patrimoine national te amoon en tant que patron des cadres en tant que membre fondateur je, je fais un acte d'accusation ah, loolu génneew la ci <laughs> voilà en tant que patron des cadres en tant que ministre en tant que euh, Macky Sall ku ku koo ku mu doon déglu nga mënoon nga ci jouer un rôle mais vous ne l'avez pas fait et aujourd'hui vous en êtes victime euh, damay damay kontaan ci li nga wax fi nga njëkkee mooy boo nekkee ci àddina saa yu ne del ji lu baax ak lu dëgg loo xam ne bu ñu la ko àttee ëllëg bu ko bañ man ba ma nekkee kii ministre de l'énergie euh, dama jàppante woon directeur général à RTS ay jàppante yu metti kan Racine Talla parce que samay tournée yëpp benn la ci dul woon wone RTS dañ fa am ci biir gouvernement bi ay ñoñam ak ñu dul ay ñoñam dégg nga wax bi ba ma posé ko fa ma ko war a posé am benn ministre d'état bu jóge président bi lool ni ma RTS ku neex président moo fay jàll. ah xam nga fan laa mu ak ñoom <laughs> loolu tax sànq ma doon ree waa waa waa waa waa Sénélec ñu may déglu dégg xam nga dafa am benn partie wu budget wu RTS boo xam ne. contribution ah. taxe taxe buy jóge ci énergie mm-hmm. fàtte naa lañ ko wax. Euh, mm-hmm. redevance euh, télévisuelle wala yooyu. Mm-hmm. dama ko bloqué pendant des mois mu indi coow parce que bu fekkee ne danga may tere man li ma moom te ma am fa ma mën a fayoo dama koy def pour nga won nga gis ko jàpp naa ni problème mu RTS c'est un problème national assemblée nationale war na ni euh, organe de régulation yi CNRA CNRA moom na daanaka coquille vide la nañu waxante dëgg. mais assemblée nationale waroon na mën a jël ay jumtuwaay tamit nii équité parce que dañu voté ay loi ñoom ñu war a mën a càmbar ministre de de de de de communication di jaar assemblée nationale waroon nañu mën a nii nag nu RTS di doxee dafa jeng ba mu ëpp finalement sax amatul amatul sens parce que RTS ci boppam du ma wax lépp mais bañ ne ba ma nekkee ci nguur gi fekk naa foo xam ne. waa nguur gi ci boppam président la république ak premier ministre toog ak ñun ñi yëpp ñu ni message yi bu ñu ko buggee jàllale ba mu dem ba bitim réew ci yenn pays yu ñuy romb wër yi dañ koy jàllale ci télévision privée yi ndax fii ak foofu yëpp duñu dégg du ñu déglu RTS donc ñoom xam nañu feebar bi fan la waaye man maa ngi sant yàlla wax dëgg yàlla li may wax Racine Talla mu may dégg ki nekkoon DG de de Sénélec à l'époque muy Makhtar Cissé mu may dégg ñu ñu représenté woon ñun ministère ci conseil d'administration RTS ñu may dégg dama jëloon ay mesures de représailles ba deuxièmement man du ma doxee dama nekk fii duma wax li ma gëm muy président muy keneen ndax réew mi ak peuple bi moo moo moo moo ñu sut ñun ñëpp te moom la ñuy liggéeyal en dernière instance te gannaaw loolu yàllaa ngi fi damay ko benn exemple rek te loolu mun nga xool ci YouTube nii nii wala téléspectateurs yi mun nañu seet ci YouTube nii pendant qu'on parle bu dee li may wax am na am amut ba Y'en a marre waree marche seen marche lu ëpp tour bi avril 2016 maa ngi woon encore ci gouvernement bi dama génn parce que boobu coow li bëri na duñu war ñu leen bàyyi ñu marche marche lu ëpp tour bi mooy vraiment seen marche bu njëkk bu ëpp solo bu ñu defoon ci régime président Macky man dama taxaw en tant que ministre nii wax ni Y'en warul marche di sukkandiku ci ay lay ak ay sabab yoo xam ne moom la ab Ablaye Wade doon jëfandiku ba ñuy ànd ñun ci opposition bi ak Y'en a di marche loolu du suñu xel sax waru ko teg ngor nanguwu ko donc man dama ci singulariser wu wax man en ce qui me concerne je dis que Y'en a marre war na mën a marche ba buntu palais bu dee condition de sécurité yi permettre na ko donc man j'ai pas de problème de de conscience ou de me remettre en je pense que c'est plutôt le contraire dañ may accuser d'être souvent très sourcilleux <laughs> avec ce que je pense être la la vérité